Boy Dioum ak Malick Niang numéro 2 Boy Dioum ak Malick Niang numéro 2 Boy Dioum ak Malick ak Malick Niang mooy Boy Dioum. Boy Dioum ak Malick Niang. Malick eh Malick a ngi eh, waa mais. mais Malick mi nu mu demee nii kii bu mel ni turandoo ba xay am de laa ilaha illallah daj ki ndaj daj ki ndaj waay lii lan la nii Malick ñaa boo jum Malick ñaa at boo jum Malick ñaa at boo jum Malick ñaa numéro deux at boo Malick Niang numéro 2 at booy jum waaw am na ngeen bu ay waay mbàccam gerte gii lu gerte ñoragul de laay gerte ñoragul sax yaa ngi koy bàcc xanaa gerte gi ñu ma may léegi laa doon yéede xam naa sama xel si loolu la dem sama xel si gerte gi ñu ma may léegi la dem <laughs> ndeysaan la jooma waxo may mayaale la xalil sax gerte kemb gerte kemb la <laughs> mayaale la xalil <laughs> Malick jum Malick ñaa Boy Dioum Malick Niang at Boy Dioum Malick Niang at xale yaa noonu Malick Niang Boy Dioum Malick Niang Boy Dioum na sama xel lay dem si Moussa Dioum ko ñaanal suñu borom yërëm ko taxaare ko àjjana yàlla na dee di noflaayam moom ak néewu julit yi fa fekk ja ko fa fekk yëpp saan booy jum at bi ne ngeen bëre saan ñuy bëggee Malick Ngom bu baax a baax dem moo nekkoon drapeau moom moom Malick Ngom arbitre saan booy jum Malick ñaa booy jum at Malick ñaa booy jum Boy Dioum at Malick Niang saan Boy Dioum Malick Niang at bi ne leen bëre yaa ngi bëre xale yaa ngi bëre bàyyi leen ñu bëre daa sedd daa sedd bàyyi leen ñu ah xool arbitre bi wax arbitre daa juum arbitre daa juum daa juum daa juum arbitre daa juum kii moo génn boo juum moo génn waaw so lii nag lii nag war nañ cee kii moo génn ñun benn tànk moo génn ah? benn tànk moo génn arbitre dañ ko booy jum at Malick Niang booy jum at Malick waaye Malick da koy xañ tuuti booy jum at Malick Niang booy jum at Malick Niang Boy Dioum Malick Niang jàppante na ñoom ñaar def gannaaw ba mbàccam gerte gi bare tool yi ku ne def nga teg tool yi ku ne def nga teg. da ngaa sedd. daa sedd te dëkkub doore fa yoo ko tasoon xam nga doore dëkk la woon bi fa yu ñëwee la toxu <laughs> xam naa ne xalil sama maam moo ma yar. sama maam moo ma yar saan ñaari xale yaa ngi noonu ñaari xale yaa ngi noonu man li ma jaaxal reporter yi gerte gam gi ñu tubaab di lekk man jaaxal na ma Parmi ceux-là, on a ak Boy Dioum Boy Dioum. Malick at Boy Dioum. Malick Niang at Boy Dioum. gannaaw bañ mi taawee dem ñëw. gannaaw bañ mi taawee ñëwaat. defaat nañu runkum dese ñoom ñaar. saan plaqué ko yokk ko da ka plaqué eh ko daan ko daan am na Malick Niang waaw kadapi daa mel ni kale am na daa mel ni quatre appuis am na waaw quatre appuis am na waaw quatre appuis quatre appuis am na quatre appuis arbitre quatre appuis la wax quatre appuis arbitre quatre appuis la wax arbitre quatre appuis la wax